tey damaa kontaan trop kontaan fu mu yem mm. depuis l'an 2002 mm-hmm. jëlima yàlla jëlima kamara moo tax ma dugg Tekki voilà te fu ma jàpp ba tey génnuma foofu man dama bàyyi woon politique carrément depuis suuti euh, génn politique rek ma bàyyi politique ndax suuti tam dafa gore mais gis naa encore ku ma ku nga xam ne moo gën a gore sax euh, kii suuti ndax nit ki dang koy yegg lu wër konaate mi ngi Dakar tout ta def may wo ndax ki ki moy tax dina wax ne ah Mamadou Lamine Diallo moy tax mi ngi lay laajte mi ngi lay ki lol motax mané wa Tamba du dugg ci fenn kudul Mamadou Lamine Diallo ah ku duggul ci Mamadou Lamine Diallo rek duma ci dugg mais man soo gisee affaire bi melni ni sama sœur sama sama sœur kuma bokk ak ndeeg doomam moo wàcc tey léegi mu bugguma rek ñu ne naa kii ma ne duma ko fomm duma tas yaakaar sinon fii dafa feesoon del waaw man ne ko dañu feesoon comme kii la woon euh, euh, euh, dëj la ñu dem seen kër sama kër mag moo tax man fii su fekkee ma ne ku ma bëgg ku bëggul ma man Lamine Diallo bëgguma la tey bëgguma la suba asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw waaw may leen ma tuuti rek may leen ma tuuti ndax euh, li ma yàgg ñaan tey yàlla may na ma ko jàkkaarloog suñu président Mamadou Lamine Diallo avant avant ma wax ci moom d'abord damay ñëw ci sama yaay bii nii amul lu mu defarul waa Tamba li ko desee mooy génnee xolam joxo ko Tamba Tambacounda tey ji naqar lañ àndaloon tey magam bu jigéen doomam gaañu ñu koy jooy bañ bi tey sax lii mënoon nañ ko woon bañ a am mais bëgg la moo tax nga ñëw ñu fàtte loolu di la di ànd ak yow Mamadou Diallo ñun dañ laa bëgg suñu biir xol wallahi azim da ngaa yéex a ñëw biir Tamba danga nga yéex a ñëw biir Tamba te incha allahu ya ci kattanu yàlla jeunesse su Tambacounda pare nañ pour liggéey ak yow bul gis bul gis lii nga xeeb ko non non bul xeeb lii de nee nga ànd ak cinq personnes moo gën ngay ànd ak mille personnes yu gorewul ñun dix personnes yi fi nekk dañoo gore ak yow te dañuy lay gunge incha allahu yi ba président nga nekk président 2024 ci kattanu yàlla.